Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 53 de ce jeudi 23 avril 2020. Le ministère de la Santé de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 387 tests réalisés, 37 sont revenus positifs. Il s'agit de 29 cas contacts suivis par nos services, 8 de la transmission communautaire répartis comme suit 5 à Touba, 1 à Mbaké, 1 à Tivaouane et 1 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. Aucun cas grave n'est à ce jour à signaler. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 479 cas ont été déclarés positifs, dont 257 guéris, 6 décédés évacués et donc 215 sous traitement. Le ministère de la Santé et de sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et ma jàngal leen ci wolof communiqué numéro 53 bu ministère de la santé et de l'action sociale jeudi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk juróom ñaari test yi ñu def fanweer ak juróom ñaar ñoo ci positif maanaam ñaar fukk ak juróom-ñeent yi ay cas contact lañ juróom-ñett yi di ay cas communautaire yu ñu mëna seddale nii ci juróom-ñetti cas communautaire yi juróom yi gis nañ leen ci tuuba benn bi ci Mbacké benn bi ci Tivaouane ak benn bi ci biir Thiès ñeent ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey amul benn cas grave bu ñu signalé ci suñu structure de santé yi yeneen malaat yi nga xam ne ñu ngi leen di hospitalisé ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ci kaa bi Sénégal njëkk a am mun nañu woññi ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti cas ci loolu ñaar ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar wër nañu ci juróom benn ñàkk nañ ci seen bakken kenn ki ñu évacué ko mu des ci suñu hôpitaux yi téeméer ak fukk ak juróomi malade ci traitement ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi mu dolli di sàmmoonteeg digle yi ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam